sëriñ Saliou Mbacké Xaadimu Rasuul mi nuy waxtaane tey nu mu sose woon daara yi kooku di laaj bu njëkk bi sëriñ Abibu bismillahi rahmaani rahim noo ngi bal noo dem ci laaj bi damay jëmale sama cant ci sëriñ Moustapha mi ak sëriñ bu ak mbokki taalibe yi fi ne toog nga xam ni na bokkoon nekk ci ron sëriñ bi ci boole gi ñu ma boole ci jotaay bii sàkku ko ci man ngir nu wax li nu xa aslëf ci li nu xam ci sëriñ bi ngir mu am lu mu jariñ ndax jamono yii nu toll euh, sëriñ Saliou li ñu koy waxal dafa bari lool lool te li ci ëpp laalewu ko taqewu taqu ko jegewu ko fenn du sax nag lu bees ndax ceeg dundam la tàmbalee woon am na ci yoo xam ne daana ko yëg waaye suñu masaan wax ak moom ngir bëgg mu wax ca wala mu mim ca day wax ni li nit ñi wax ni lépp mënee su ko miim te soo xasee dugg ci miim léw miimul yaa ko saxal moo tax du ma miim dara moo tax dañ woon cell rek kuy waxit yaay wax waaye moom du du ñëw miim dara waxit bu ñu buñ ko nee waxal ci nangam mu ni ma koo xam ne boo waxul ñu waxal la boo waxee nu muy mel looloo mooy jamoon yi nu toll tey ku ngi wax te waxul bu waxoon tey nu muy mel loolu bu ko defee nag ñoom bu ñu sàkkoo nag ñun ñu mel nii nga xam ni xam nañ ci moom aslef lu mu néew néew ndax kenn koo xool ci ñii bala bu fekkee xamoon nga ko ci wetu sëriñ bi bu la waxee dara ci sëriñ bi da nga ko gëm bu ko defee kon bu ñu dajee bu du ñàkk ñu génn fi benn ñaar ñett wala kàddu yoo xam ne dana doon yoo xam ne dana bari lu mu fëlet ci xew ci jamono ji loolu mooy euh, li nga xam ni moo tax ma sant leen ci moo tax it ma sawar ci ne yeneen yu mu doonoon yu bari du ma ci sawar du ma jaxat jóg ndax ñàkk naa jot lool waaye ne lii nag moom sawar naa ci te saa suñ ma ci wooyee danaa ñëw ndax waxtu wu nekk damay dégg li ñuy waxal sëñ bi te dara neexuma ci ndax xam naa ne dara du ci dëgg. Mhm. wala boog yi ci gën a bari du dëgg. kon bu ñu ma cee boolee ci ba jotaay bi dinaa ci sant bu baax bu ko defee nag bu ñu ñëwee ci euh, laaj bu njëkk bi nga xam ne moom nga ma laaj muy mbirum daara sëriñ Saliou subhaanahu wa eh, eh, eh, ridwanullahi alayhi dafa gane àdduna ci daara di nitug daara di nit koo xam ne daara dong dong dong ko neex amul beneen bëgg-bëgg bu dul daara jaar ci daara alquranul karim ca kanamu waajuram ba watta alquran ci kanamu waajuram jàng xam-xam ginnaaw waajuram loola danañ ci dem wàllu wàllu xam-xam geeg yooyu ci loxo sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha ba bi mu jógee ci daara jàng ba noppi yaa ku teel a noppim la ndax boobu amul ñaar fukki at fukki at ak juróom-ñett fukki at ak juróom-ñeent te la noppi cim njàng te jàngu ca yem bi muy noppi mbooleem boroom xam-xam yi ci réew mi maase nañ ca xam ni moo raw ci réew mi ndax ak mujjam téere yi mujj yi mu mujj jàng ak fi mu mujj di jàng ak lëm mujj di jàng ka ko doon jàng ka ko ko doon jàngal dañ ko doon fay ay ay ay ay téere yu raar la ak branche yu raar yoo xam ni amul woon ci réew mi tukkuleer a ko doon jàngal yoo xam ni ba mu egg ci wax ne am na ci branche yoo xam ni am na ci fànn yoo xam ne egg na ci foo xam ni su amul kii kilifa gii mu am dana sànku ndax sori gum ca sori ba loolu bi mu koy bi mu bi mu koy def muy egg foofu fukki at ak juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett fukki ak juróom-ñeent ci la atam mu ca jógee ca daara jam doon jànge dafa jaar si suñ Modou Moustapha mu jox ko ndigal ne ko damaa bëgg fu ma liggéey mu jox ko ndigal yebal ko ci Serigne Lamine Sylla euh, moo ma ko loolu moo ko nettali boppam ne boo demee nga jëm noonu waaye nga jaar ci Serigne Lamine Sylla Serigne si la mi ngi nekkoon ci kilifa yu mag yi la àndoon ak Serigne bi di doomu tafsir boobu Sylla Serigne Touba yar ko mu nekkoon xombal ci cilla mm-hmm. ba mu fa jaaree sëriñ Lamine moo ko takkalu fas mu dugg noonu wax na ma fi mu jaare jaar mandangri jaar mbusnaax mm, mm, jaar nangam nangam yooyu yëpp limal na ma ko ba egsi got ba mu egsee got nag fi la gis te feew jëmul woon got ndax booba xabaan la jëmoon xabaan la doon dégg moom la xemmee moon te xabaan day barab bu yàgg ci daara ak ak ak liggéey mu xemmeem soosu sa tax mu jëmoon ci waaye bi mu ñëwee foofu nag mag ña fa nekk dina mag ñu yeewu yoo xamante ni ñoo defi pexe ba woon ko ne fii mën nga fee tàmbalee bu toog foofu la tàmbalee daaree got muy 1933 la fa egsi mm, waaye sampu daara ja mi ngi doon 1934 euh, mag ña daal di koy rëddal foofu loo xamante ne lii mën na koo tàmbalee muy 1934 mu tàmbalee fa daaraja ja ba fa tàmbalee daara ja moom mooy jàngaleel boppam boppam mooy jàngaleel boppam alxuraan. muy jàngale boppam xam-xam mbooloo it la àndal ba muy sa ba ba muy ba foofee ndax demul rek ne fa ci mu mbooloo ma soog a ñëw mm-hmm. déedéet waaye ay ay ay kilifa ay mag la àndal yoo xamante ne lii bàyyi Moustapha bàyyi Moustapha Jaw sëñ Matar Jaw ci la bokk sëñ eh, ak ñu bari daal ay benn benn yoo xamante ne am na ñu ma ca xam ñoo xam ne ñoo ma nettali loola lu bokkul ak li ma ca sëriñ bi nettali sëriñ bi sañ sanc foofee tàmbali nag di liggéey tàmbali di jàngale nga xam ni kon ku teel a dugg ci daara la dafa génn ci daara du maa mës a génn ci daara daal kon ndax bi mu matee daal jàng lañ ko dugal ci daara mm, bu mu génn bi bi mu bu mu eggaleem daal di soobu ci daara ber daara yi boppam ku ñem ku teel a ñemee responsabilité la ndax at yi mu tolli booba ci jamono booba toll ci di engagé àll ne da nga koy da ngay liggéey da ngay ber daara booba loolu yombut. Mhm. boobu mag ñi rek ñoo ko daan def. mu toog mu nekk daaray got sañ sañ ci ko ci at moomu. tàmbali di jàngaleel boppam moo ma waxal bopp sa boppam ne bi may taam bi ma bi may taam bi may bi may sanc fii man maay jàngaleel sama bopp moo jàngaleel boppam al alquran moo jàngaleel boppam xam-xam am na ca mag ña ñoo xam ne won nañ ma mbind yoo xam ne ca jamono yi ma di le tëraleel la leen ko wonoon nga xam ni day ànd ak ñoom dem bu xëyee day ànd ak ñoom dem tool ba mu naaj ba nga xamante ne bi ñu ngi bëgg a wàcc mu wàcc jiitu si leen ci kër gi bind àlliwooy alquran yi bindal ci këyit boobu téere bind ci kayit li nga xam ne moom lay jàngal ñi nga xam ni ñooy jaa jàng xam-xam bu ñu wàccee kon kooku mm, at moomu la njëkk a samp daara noonu la sampe daara foofu la tolluwaayam tollu booba ci daara kon kooku ku teel a suubu ci daara la ginnaaw loolu nag la ci yeneen daara yi ci def soog a mm-hmm. kon ku ne Serigne Saliou ne daara yaakaar naa ne anticiper nga sax ci euh, ñaareelu laaj bi ñu buggoonu laaj muy ni mu tërale woon njàng mi ak euh, njàngale mi waaw loolu moom Euh, bi mu koy soog a tàmbali moo ko yoral boppam di ko defal boppam loolu mi mo ko nettali bi bi mu andee daaray got 1984 la ma fa andi fekk sëñ sol sëriñ son yi bu jox ko ay gone yu bari dafa naa ñàkkul ci bokk si ñi fi toog sax ay gone yu bari mu mm, fekk boobu mi ngi may jàngaloo xam bi ma noppee mu woo ma ñëw ne ma damaa bëgg ñu dem got nga jàngale fa gone yi ma sëriñ son yi bu jox ñoom laa bëgg nga tàmbalee ci nooy ànd nag ànd dem ba got mm, bët ba ñu gone ñu wàcc gone yi installé lépp mu daal di may woo ne ma nag euh, xam nga li ma la andee fii ah ma ne ko ah eh, moom laa bëgg a xam ne mu ni ma li ma la andee fii mooy sama liggéey amul benn liggéey bu dul bii lu ci dolli ko rek damaa dab jamono nag dab na ma gàllankoor na ma ba mën a lettuma ko sama bopp. Mm-hmm. ma bëgg ngeen féete ma ci. waaye na nga xam ne lii mooy sama liggéey te saa su ma ko mënee danaa la ci fekk te maa ak koy ànd ndax amuma benn liggéey bu dul bii. lu ma gàllankoor itam damaa dab fekk ma ci waaye lii rek mooy sama liggéey jàngale jàngale daal di tëral nag ni nga xam ne ne lañ koy doxale ne lañ koy doxale loolu mooy gone yi ñetti mbir nee na laa bëgg ci ñoom ndax moom la ti Touba digle woon mooy e, jàng li njëkk mooy jàng gone dafa wax ni gone mënta liggéey boo ko liggéeyloo woon day gaañu te du liggéey lu am njariñ waaye bi mu tolloo ci jàng nag boo ko jàngaloo moom moo moo moo moo mën naa am njëriñ jàng rek la man moo tax gone yi daa bëgg ñu jiital njàng bi bu ñu jiitalee mi nañ ci teg yar bi bu ci tegee yar bi it nañ ci teg di leen jàngal liggéey ndax jàng ak yaru ak liggéey mooy tërbiya te daara ji daara tërbiya la kon na nañuy jàng nañ leen di yar ñuy tegu ci aw yoon di xam ni ñuy waxee di xam ni ñuy doxee di xam ni ñuy defee di xam lu ñu war a wax fu ñu war a dugg nu ñu war a def nañ leen di yar mu ànd ak njàng mi ba noppi nañ leen di jàngal liggéey bu ko defee bu ñu demee saa suñ xëyee nañ dem ca tool yi teel teel bi mos ca dara suñ ci mosee dara bu ñu bu buñ ñëwee ngeen nga jàngal leen alxuraan buñ jàng buñ jàngee ba noppi ak ñi nga xam ne ñooy jàngale alxuraan buñ jàngee ba noppi kenn ku nekk jox nañ ko lim ba nga xam ni moom la moom la war a am boobu dafa daan wax ni ñaar fukki nit ak juróom eh, eh, doy na cim njàngale saa su ko weesee tàmbalee ëpp waaw bu ko yée mën na koo yées waaye bu demee ba egg ca doy na mhm. saa su ko weesoo tàmbali na ko ëpp bu ko defee kenn ku nekk nañ ko jox ñaar fukk ak juróom saa su jàngalee ba noppi ba ñoom ñi nga xam ñooy jàngale alxuraan ba noppi ñu ñëw nag jàng xam-xam man it damaa am soo cër boo xam ne damay jàngale comme ñoom su ma noppee soog a ñoom ñëpp ñu soog a maase ñëw xam-xam kon cër noonu la ko séddalee woon noonu la it na séddalee daaray liggéey yi liggéey yi loolu xam naa bu ñu ci eggee sëñ Abdou dana am lu mu ci lu mu ci lu mu ci kii mhm. ñen ñenn ñu nekk kuréel bu nekk ñaar fukk juróom ñu nekk ke di jàngal mooy seen li mooy seen jëwlin ànd ak ñoom dem ca tool yi ñu liggéey bu ñu wàccee moo leen di jàngal bu lekk jotee itam moo koy bool ak ñoom moo leen toppatoo néeg yi nga xam ni moom lañu moom lañu dëkkit moom ñoom ñoom dafa daan wax ne daal bu ñu ber sëñ daara yi ber gone yi mësu koo nango sëñ daara bu ne bokk ay goneem néeg mhm. ndax mooy tax mu xam la ñu ne mooy tax néeg ba mën a sell mooy tax néeg ba mën a set mooy tax gone yi duñu def lu ñu war a def waaye gone boo ko dem nekk fee dana nekk ci loo xam ne xamoo ko moo tax mës ta nangu benn kenn benn jëwrin wala benn sëñ daara ber sa néeg déedéet gone yi da ngay tegsalal fii lal yi gone yi wër na ñuy tëdd bu guddee lu xew nga xam ku dara jot nga xam ku fanaan siwul nga xam ku lekkul nga xam lu lu dajawaa nga xam bu bët setee nga ànd ak ñoom ngeen dem liggéey su ngeen liggéey ba ñëw ngeen nga jàngal leen su ngeen ja jàngalee ba noppi euh, dem jàngi xam-xam noonu la tërale woon daara ju njëkk ja loolu nag ca njaal benn gëla mujj gi dem na ba nga xam ni euh, weesu na loolu ndax ñaar fukk ak juróom yooyu mu waxoon mhm. demoon na ba dee bay déborder ndax daa dana dem ba daara ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett bi mu mujj got ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett la waxoon ni na fi ne mhm. te booba jàngalekat yi matuñu loolu waaye danga xëy xëy nekk ca booba dañuy woyofal leen liggéey bi ndax gone yi bari nañu dana xëy nekk ca ba jant bi soo doo wàcc